<laughs> waaw boo déggee ma naan tuuma maanaam texte ma doon liir euh, xam nga RFI ñoo ko bind ñoom ñoo bind ñoo bind loolu dañu wax ne premier ministre bu réewum Sénégal Ousmane Sonko tuumaal na mbokkum premier ministre am bu Israël Benjamin Netanyahu ne daal day wéyal guerre bi ca bande Gaza ngir bëgg a wéy dund politiquement ñoom ñoo wax loolu maanaam RFI ñoom dañoo jàpp ne Ousmane Sonko li mu wax Benjamin Netanyahu daf kaa tuumaal xam nga ñoom occidentaux yi xam dañuy jàppale Israël ñoom jàppewuñ noonu fi ne ñoom gis-gis boobu yi ci gis ne euh, Isra euh, Benyamin Netanyahu moom daa ba a nekk ca nguur ga maam daal guerre bi continuer arrangement am la ndax loolu moom ñiy jàngat jàngatkat yu bare bëri bëri ci àddina bi loolu la wax man mii itam lool ba comprendre yàgg na yàgg naa koo wax xam daa da ngay xam maanaam boo dee suivre guerre bi ak environnement bi ak li xew ci biir réew ma ak ni négociation yi demee maanaam lum loo gàtt-gàtt xam-xam da ngay xam ne beneen bi Netanyahu guerre bi continuer ko arrangé te léegi foo koy teg itam mooy da ngay xam ne actuellement benn moom benn bit maanaam leen rek la am pour nag mën a mën a mën a mën a dundaat ci politiquement ca Israël bu dul loolu moom jeex na mooy mu gañ a Hamas su gañee Hamas waa Israël luñ ko mere woon dañ ko bëggaat subaa mën naa mën naa amaat pouvoir mais gaña gi du ko am te itam xam nañu te Israël bu delloo ginnaaw bàyyi guerre bi ñaari problème mi ngi koy xaar première mooy élection day am mu wàcc benn ngoog ndax ñu bari mere nañ ko ndax ñu bari dañoo jàpp ne li am échec la moo tax mu am deuxièmement itam justice bu réewam da koy am na lu koy toppee loolu itam Sonko itam wax ne moom daa pare ngir dox ci ay milliers de cadavres maanaam ci ay junni junni nit ngir nekk wii nekk ci premier ministre bu réewum euh, Israël waaye tam ngir bañ a jàkkaarloog justice bu réewam. te nag ñoom RFI ñoom ñoo jàpp ne Ousmane Sonko def koo tuumaal ñoom ñoo jàppee loolu ñoo xam ne le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a accusé son homologue israélien Benyamin Netanyahu de poursuivre la guerre de la de la dans la bande de pour sa survie politique loolu lañ loolu lañ la wax léegi nag xam nga Ousmane Sonko li mu wax nii moom lii courage dëgg nit ko am courage dëgg moo mën a wax lu mel nii en tant que premier ministre loolu liñ ciy liñ ciy jàngate dama Ousmane Sonko moom dafa constant maanaam moom euh, constance boobu mu am nag li ko may mooy nguur daf ko téréwuta nelaw xam nga ñu bari ñoo xam ne ñi mu ñu jël position ci geer bi c'est parce que ñu ngi sàmm seen nguur parce que yéen waxee mooy ñu bari xam na ne li Ousmane Sonko wax moo di am mais ko wax ndax xam na ne israélien la lañ capable ñu capable dafa bari kàttan gi ñu am ak ni ñu doyee waar seen influence léegi ñu baree bari na bu fekkee dañoo bëgg a wéy ñu nekk ci nguur lu mel ne araab yi nga xam ne ñu bari ci ñoom lii Ousmane Sonko wax duñ ko wax Benyamin duñ ko wax Netanyahu ne ku ko wax rek am nga ak moom problème ku ko wax rek am nga moom problème bu ma nee ci wax dara dana sàkkal pexe ci nga xamee ne Ousmane Sonko constance bi mu am waaye te moom politique du mbiram maanaam wala boog maanaam bokkut ak nit ñi nga xam ne ñoom maanaam lu ñu ninal seen ceeb wala yooyu noonu tax koo jug xam nga yooyu Ousmane Sonko rek wane ay yoon yoon yoon yoon yoon bi muy opposé wu toll na benn instant bàyyi woon dem ñu jox alal mu toog noppalu daa gënoon ci moom nguur gi tey jii bu ko neexoon président Diomaye du ko gañe ak yeneen ak yeneen léegi nag jikko maanaam nit ku jikko woo noonu moo mën a waxee nii maanaam man Ousmane Sonko ni mu waxee man béttu ma ndax kuy sàmm ngi nekk maanaam ku nekk ci koo xam ne yow nga nekk ci nguur nga ñàkk nekk ci nguur da jàpp ne dëgg mooy tax maanaam da ngay fas yéene dox ci wax lu mel nii ku mel ne Benyamin Netanyahu mais lii nguur gi fi nekkoon jàpp loolu sax am na nguur gi fi ndax dégg ngeen leen ñuy wax benn yoon yiy yàbbi ci ci lii est que ñi fi nekkoon kenn ki ñoom ñeme naa dem di toog ci manifestation bu mel nii ah man day ni ma amul daay gisuma ko maanaam juróom ñi fi nekkoon di fi jóge manifestation bu ñu woote yaakaar naa li gën a sax mooy est-ce que wóotul benn manifestation ñu aaya ko ñu interdire ko malgré nag booba interdiction bi ñi def njuumte ndax demande dafa am aw yoon ginnaaw bi ñu leen ko aaya ko ñu teg ci ndax demande pour def manifestation dafa am yoon dafa am jaare ñoom nag dañ ko respecté doon ginnaaw bi ñu ko respecté bàyyi leen ñu def manifestation mais est-ce que gis ngeen kenn ku bokk ci nguur gi dem toog dem teew amul léegi nga xam ne Ousmane Sonko bu dee actuellement damaa jëlee Sénégal mais Afrique mais adduna bi ñu bëree bëree bëree bëri dañu koy tenir en compte bu tax bu ñemee benn kaddu yi ba noppi wax ko français nga xam ne moom li li mu wax daf ko wax dafa njëkk wax français da ah, wax olof mooy bi mu wax français mooy moom international lay waxal nëb nëb ma dara ci may wax li mu wax moom laa gëm loolu xam nga kan moo ko man xam nga loolu kan moo ko man mooy koo xam ne moom nguur nguur tëréwu ko nelaw mooy koo xam ne moom maanaam nekkul ci kuy sàmm ab siisam xam ma ne xam fu may dañ ko dëggam déet maanaam xu moom maanaam xu ma xam ne ñuy wax dañ ko ma dégg man maanaam koo xam ne yow li nga toog maanaam nekkul loo xam da jàpp da nga cee bëgg a dee jàpp ne lii foofu nekk bu loolu doo dund maanaam lu maanaam lu lay koo xam ne daal wutul pexe lu koy saxloo fi mu toog ku mel kuy def loolu moo mën a maanaam Ousmane Sonko bu nekkoon dafay chercher ngir rester ci nguur gi mook Jomaay kora waxuma la waxuma la wax mais dem te lii sax du ko def léegi nag man naa am conséquence conséquence bi mooy conséquence bi am mooy bu mu kenn nag Israël boo gisee RFI ni ñu traité information bi man euh, dima am na ko ma ko wax te effectivement wax na dëgg mooy jàpp naa itam RFI ñi ngi jéem a diaboliser maanaam ñi ngi jéem a chercher euh, maanaam ma bi am ci diggante Israël ak waa euh, Sénégal boo déggee ni ñuy traité information bi ça veut dire que ñoom bëgg nañoo indi benn conflit bu ñu bëgg a tijji moo tax man du bett bu ñu jékki-jékkee Israël convoqué bu Sénégal foofee fekkee am nañ fa ambassade foofee ambassade ambassadeur bu Sénégal Israël du ma bett Israël ko ñëw am lu ñu ko wax loolu man du ma bett mën naa xaw a jur tuuti incident diplomatique lii nii. foog naa sax incident diplomatique amoon na ci diggante Israël ak Sénégal jamono président Macky Sall est doon cause moo ko indi xanaa itam lu mel noonu amoon na benn incident diplomatique entre Sénégal ak Israël foog na amoon na ñoom président Macky Sall damaa lii am nii ak ni ko RFI waxee ak boo gisee ne ko médias internationaux yi euh, jàllale Ousmane Sonko am audace wax ko en français maa ngi njort ni maa ngi njort ni mën naa jur conséquence ka mën na kaa bañ a mais à quatre pour cent mën naa jur conséquence bi muy jur mooy Israël jékki-jékki ndax xam ngeen lu mel nii lu xaw mel nii la la la Turquie wax Israël mer loxo yu mel nii la Turquie wax Israël mer ba ci média média internationaux yi euh, duggee daal di nag euh, xool information bi ngeen neex ñu traité ko comme ni ko RFI traité Israël mën ne jàpp ne kon effectivement euh, Ousmane Sonko dafa tuumaal suñu premier ministre xam nga boo demee ba ne Benyamin Netanyahu leen dong la am actuellement mooy bëgg dox maanaam daa pare ngir dox ci ay milliers de cadavres ngir resta ci bopp réewam waaye itam bañ a dem wuy ji justice bu réewam xam nga yooyu Israël bu ko neexee jàppe ko jàpp jàppe ko kàddu yoo xam ne kàddu yu yu yu yu Benyamin Netanyahu su ko neexee siise ko ne kàddu yi dañ ko tuuma jàpp na lii dafa ëpp léegi nag mën naa jur incident incident boobu ndax lu dëgg la ci ñoom wala non waaye mën naa jékki-jékki ñu ne bu mu bett kenn nga jékki-jékki convoqué fa ca Israël ñu convoqué ambassadeur ambassadeur bu bu Sénégal foofee ah mën naa mën naa jur incident diplomatique ça dépend nag ci Israël naka lañ koy jëlee ndax dañ koy jël avec légèreté teg ko noonu ci suuf dañ ko jox solo wala ñu jéem koo def nag jël kàddu yi jëf ko nekk lu ko ëpp bu ñu jugee ne Ousmane Sonko c'est bu bokkut ak Sénégal influence am ci lu am solo influence am ci àdduna bi itam kenn nattalitu ko Israël bu ñu sukkandikoo foofu mën nañu koo jël nag ne mbir mi il faut duñ ko bàyyi il faut ñu def ñu def réaction wala ñu jàpp rek daal lii ay kàddu la yoo xam ne amul solo nañ ko tekk suuf en tout cas mën naa ubbee bunt yu bari mais daal li leer mooy courage bu Ousmane Sonko am wax lii ñu ko ci àdduna bi bëriwul am nañu ko xam nii ma ko xamee mais seen nguur tax duñ ko wax. sëñ Lamine euh, man nag propos yi Ousmane Sonko def comme ni ma ko wax ci vocal boobu rek ça dépend rek ci ne ko Israël di jugé bu Israël di jugé ne wax ji c'est inutile moom mën nañ ko tegg ci suuf mais buñu gisee ne wax ji lu utile la parce que ki wax xam nga Ousmane Sonko mi wax ñoom buñu jugé ne kii wax ni premièrement dafa am influence. ci biir réewam mais ci bu bokkut ak réewam mooy Afrique bal sax dafa am influence ci àddina bi Israël bu ñu gisee foofu wax ji mën nañoo tenir en compte ci wax ji léegi nag ñu xool ban ban la ñuy def mais nañu gis ne dem nag wax ji moom c'est euh, maanaam daal amul solo wax ji ñàkk solo la ñu teg ko suuf mais man daal maa xool lan moo doon ci 24 heures yi ñuy dëgmal wala 48 heures yi lan moo doon réaction Israël bu fekkee naa ne waxuñ ci ma xam ne kon dañoo jàpp wax ji jàppoon wax jox ju solo waaw waaw ndax yow xam nga bu baax a baax am na am nañu Israël a problème ci jamono ji façon lii moo tax lii moo tax ñu amoon problème lii moo tax ñu amoon ndax ñoom bu ñu gisee euh, euh, Erdogan ñoom moom jafe-jafe <laughs> lu waral loolu mooy Erdogan moom euh, xam nañ dafa am dafa am influence réewam du réew mu ndaw c'est pas n'importe qui dafa am influence ci bi am ñu koy bàyyi xel lii mu wax ni Arabie Saoudite moo lii Ousmane Sonko ko wax Arabie Saoudite mu la gën a xam émirat arab uni moo gën a xam Égypte moo gën a xam mboolem arab yi ñoo ko gën a xam mais ñooñu foofa ña fa nekk seen ay nguur la ñuy sàmm ñoom seen nguur lañ bëgg mu taxaw moo tax lii duñu ko wax yeneen oto yeneen yi nga xam ne ñoom ñoom faaliwuñu Israël faaliwuñu Amérique ñoom danaka dañ parce que ñoom ñi ngi dox sans ñoom nag ñoo am ñoo mën a am fullee taxaw jël position comme ni ko Iran def ko ku mel ne Colombie ak yeneen réew ku mel ne euh, nga xam ne Brésil da xool ne ci d'une am na côté boo xam ne ñoo ko amee di ñaar mais am na côté boo xam ne dañu ànd ak moom mais ni nga ko waxee Israël seen influence ci adduna bi moo soof tabari sur les réseaux sociaux parce que ñoo ko contrôlé adduna bi presque daanaka ñoom mu ngi noonu maanaam seen kattan moom daa bari jàmmaarloog ñoom yombul waaye nag ku gëm yàlla rek moo mën a jàppaar jàmmaarloog ñoom ku gëm yàlla gëm ne daal fii adduna bi yàlla rek a fi nekk wayam kuruna wayam kur la wallaahu xayrul maakirin kenn mu kattan yàlla rek am kattan ku mel noonu moom man ngaa wax ak Israël li nga ko bëgg a wax te man damaa gis ne Ousmane Sonko daa bokk ci ñooñu mooy ñin ñi nga xam ne maanaam ñoom dañoo gëm yàlla mooy ñi nga xam ne ñoom daal te Ousmane Sonko trajectoire bi mu jaar ba agsi fi da nga xam ne kii bu gëmutoon yàlla loog si fu mu agsi ku mel ne Ousmane Sonko mën naa wax lii waaye bari na ñu ñuy wax ay révolutionnaire ci àddina bi wala ñu leen wax ci Afrique ñemewuñu wax li Ousmane Sonko wax ñemewuñ ko am na ay bañkat ñemewuñu wax li mu wax dafay des nag kii ndax gëm maanaam ku gëm yàlla daal moom man na ko ku gëm yàlla xam ne bu amee yàllaa ko jox bu ñàkk yàlla ko jox kooku moom ñi mën a wax li moom xam na ko gëm na itam bu dundee yàllaa ko dundal bu dee yàllaa ko dundal ku mel noonu ñu mën a wax lii. moo su dama koy wax Ousmane Sonko ak ñii ñu koy tëkkaleel bokkuñu bés sama di ko wax nit la comme nit ñi day juum di def ay juum te comme ni ko ñëkk di defee mais du ñii bari na ñu ñuy wax di tudd Ousmane Sonko di leen tudd bokkut ak ñoom ndax maanaam parfois bu dox bu doxee bu doxee Sonko bu doxee bu ñu doxee Ousmane Sonko doon xam ko xoolal ki nekkoon ki nekkoon càdd fig sa masara <laughs> fan la mujje moyen moyen moyen pression bi ñu teg Ousmane Sonko lañ ko teg mu waaf. loolu laay wax sax effectivement maanaam loolu laay maanaam mu xool ne wax ji amul benn benn benn poids boo xam dana ko gàllankoor moom parce que Israël fi ne dañoo toll ci foo xam ne nii kii wax képp du seen problème waaye ki nga xam ne ay waxam mën naa mën naa wala bokk ki nga xam ne mën naa jëf exemple Turquie mën naa jëf xam nga Turquie mën naa jëf parce que bu fekkoon ne dañoo bëggoon utiliser OTAN pour dem carrément song ji euh, diggante euh, euh, utiliser OTAN lañ bëggoon def xam nga pour songu Nasrallah songaale outils yi songaale en même temps Iran Turquie moo bloqué loolu. parce que am na plein pouvoir pour bloquer ko parce que OTAN boo ci bokkee mën ngaa sax ku bëgg dugg yaa xam naa defoon na ko Suède kan am na comme ko defoon ci côté Russie yooyu côté côté boobu pouvoir boobu noonu Turquie am moo tax chaque fois waxee Erdogan di am benn benn kii bam parce que Erdogan lañ fi gis ah, ko dara mu xëy dugg xam kooku am na benn pouvoir bi am na kii donc Israël dañ koy bàyyi xel tout le temps léegi nag ndax ndax poids waxu Sénégal am na benn poids boo xam ne nii am dana ci dolleeku parce que tamit Sénégal gëm naa ne bu dara amoon euh, euh, avant Ousmane Sonko it yaakaar naa bu ñu doon wote ci lenn euh, li daan am mooy palestiniens yi lañ gënoon a àndal. Euh, contre ñu woon ni ñu koy waxee contre palestiniens yi donc léegi li ciy dollee ko at mooy wax ji ndax wax dana dolli dara ci biir euh, mbir mi loo xam ne dana gàllankoor Israël ndax mën naa am wala de Israël léegi dañuy calculer loolu bu fekkee ne amul sax wax mënu leen a dara duñ sax duñ leen sax calculer dañuy jàll teewul def la ñuy def luñ du leen jaral sax ñu naan dañuy woo seen ambassade wala dañuy nangam nangam mais bu fekkee ne kii wax dafa am benn pouvoir waxu Iran dafa am pouvoir waxu Turquie dafa a am dafa pouvoir waxu Égypte dafa am pouvoir parce que ñooñu ñëpp dañoo nekk ci benn environnement yoo xam ne yàgg nañoo am moom problème yàgg jam-jam lak moom euh, waxu Nasrallah noonu la mel waxu uti dafa am ñoo xam ne nii dañoo impliqué wu direct ci mbir mi Amérique daf ciy impliqué wu direct li muy wax day compte parce que moom mooy ki nga xam ne bu ko neexee téye ay bombam suba suba France dañuy compte parce que Israël bu nekkoon ci jafe-jafe mën nañoo ñëw dimbali leen donc loolu ñooñu ni ñu leen di calculer du bokk ak ni ñuy calculer koo xam ne ni lu mën di xew moom amut sax benn kii di ñëw dinaa da lay jàppale wala da lay dimbali wala boog da lay gàllankoor ñaar yi bu ci benn amut rek wax ji mën naa bañ am benn poids ci solo ba am solo man nga xam damaa gis ne am euh, ñëpp xam ne position Sénégal lii la ay jullit ñoo fa nekk seen position lii la mooy kon ñu toll ci étape boo xam ne ni gis nañ mbir moo xam ne ni naqari nañu ñu naqaru ko ci suñuy xol wax ko ba ñëpp dégg ko waaw wax nañ ko ñaawlu ko wax ko ñëpp dégg ko premier ministre bi nag détails am ci dugal ak yooyu ndax détails yi jar na ko jar ko loolu it mën na ko jar ko mën na ko may jar loolu moom man pour man du du lu kii trop trop trop waaye wax gi mu ko wax it wane na na euh, moom dawul dara ci làqu dara maam euh, tudd gi mu tudd dara ci premier ministre ba wane na na làqu dara ci li muy def daal waaye waaye amal amal à part loolu nag premier ministre Israël ak ambassade Israël ci Sénégal ak ñooñu ñëpp mën nañ sax bañ a def mën nañ sax bañ a tontu jëm ci mën nañu sax bañ a tontu jëm ci waaye nag chaque moment danañ di note njiiti réew yi ci réew yi ban opinion lañ am ci Israël moom danañ danañ ko noter di ko dégg di ko xam waaye nag mën na ñëw bi def benn benn réaction di jëm ci yow parce que mën naa am yàqaloo leen dara daal ndax yàgg mu ne Ousmane Sonko mën naa yàqal Israël dara ci a muy def. Touba Xelkom pièce d'étage